baabu taxaaratil maa yi mooy bunt bi day jàngal laab ak ndox wa sawdi ak yére wal buqaati ak pàkk wu maa yu ak la doy mel libaati ci ko daay fi salaati si julli bunt bi moo jàngal ndox mu laab ak yére yu laab ak barab bu laab ak lan la nit mën a sol jullee ko moom nag dafa yem rek ci laab ak biti ni ki yéeyeeg pàkk beeg ndox mi tuddul yaram bi waaye danañ ci tudd dara noppi ci laab ak biir gi mooy fexe set caañaan ak rëy ak xaaw ak xol bu bon ak yu ñu roog yooyu yëpp ndax doomu aadama dafa war a laab ci ak ci biir su fekkee laabal na yéreem laabal yaramam laabal pàkkam bi muy jullee sol yére yu set di julli waaye xol ba moo gën a bon dégg nga añaanang ca réyang ca kooku dafa mel ni ku tabax kër gu rafet rek waaw biir kër gi yëpp mu duy ko ay sobe ak i tilim ba fees tepp loolu xamul njariñ biir kër gi la ñu war a dëkk waaye dafa tilim kenn du fa dëkk kon lu biti ki rafet rafet mooy dëkk waa yàlla na yàlla xaju ci asamaan xaju ci suuf waaye mu ngi xool ci mu ngi xaj xolu jaam bi ko gëm su fekkee yow sa biti laab na waaye sa xol laabut na nga xam ne leeru yàlla du toq sa xol mukk lu sa jaamu yàlla yu bëri bëri <clears throat> dégg nga xanaa soo jëloon sab jaam bu jigéen waajal ko bam jekk solal ko yére yu rafet waaw waaye fekk jàmm bi dafa dee nga dem jox ko buur hadiya xam nga ne lu yére yu rafet rafet buur du ko jël ndax jàmm bi dundut ne ko noonu it képp koo xam ne bitteem dafa laab waaye biiram laabut mu ngi mel ni ku jël jaam boo xam ni dafa dee solal ko yére yu rafet di ko hadiyaal buur kooku jaamu yàlla am yàlla du ci nangu dara dégg nga mën naa wér gaa ci sharia waaye du amal njëriñ bu demee rek yàlla dafa naan delloo leen ko jaamu yàlla gi taxuma dégg nga de <clears throat> moo tax kuy julli war naa fexe ci ñaar yëpp ndax lan ndax lu borom téer bi wax ne wal musalli aji julli ji yunaa ji dana diyaaleeg rab boobu boromam kon war na ko añi ta ahaba mu préparé li daalika ngir diyaale googu bil doy ci njàpp awit tóore wala sangu in wajaba nem war na alay si moom a tuuru sangu de yow mi dafa mel ni da ngay diyaale sa borom kon war ngaa rafetal sa biir ak sa biti rafetal biir gi nag mooy dindi bépp jikko bu ñaaw ci sa xol xam ne yàlla rek mooy borom te dogal te mooy def te jaam dara waru mooy nangu lépp lu yàlla dogal ndax yàlla moom ay mbindeefam sañ na see soppandiku a neexee sañ naa yëkkati kii wàcce kii yow nag bu yàlla yëkkati nit sa kaw nga merci su boobaa yàlla ngay contourné nu yàlla doxalee ngóoram gi moo la neexut buuru àddina rek lislaam daf ñuy sant lum ñu tegoo ñu tegoo ko jile loolu neexut ñu fekk mooyut yàlla bu tegee luwaa boo xam ne neexut suñu bakkan ndax diis na ci ñun waaye du moo yàlla war nañ ko cee topp rawatina yàlla mu ñuy bindi nag kooku lum dogal rek war nañ ko cee topp waaw ak lu mën a doon yow daal julit bi del naqarlu yàlla naqarlu di bëgg lu yàlla bëgg waaw bul xool sa intérêt bopp ndax yow ñëwoo fi pour bànneexu ñëwoo fi pour yëkkati sa bopp ñëwoo fi pour nekk buur ak sang déedéet da nga ñëw rek ngir nekk jaamu yàlla kon nag deel jaamu yàlla jaamu yàlla nag mooy teggin rek sa diggante ak sa borom loolu yàlla sant rek nga def ko dinum la tere nga bàyyi ko lu nekk rek nga jox ko lam laaj ci tegin sa diggante ak sa borom bu dee noonu la da laabal sa xol dégg mboolem gàkk-gàkk yi de ni ki xañaan ak yem sa bopp yooyu ndax yow doo dara yàlla rek ay dara yow sa jaamu yàlla rek ci nga mën a foore gannaaw budul jaamu yàlla yi doonoo lu may nit koo xam ne sa cosaan ab toqam ba nuyu la bu la nga bukk raxas feeg raxasoo doo am jàmm dégg gannaaw ga nga juddu mënoo dara dégg nga sa awra yi di feeñ ñu di la sang sa yaram yaa ngi feeñ di la sang mënuloo sa bopp dara dund ba nga doon dundee sax dañ la ko jox wutuloo sa bopp dara gannaaw ga nga màgg yàlla may tuuti ci kattan waaye ànd ak loolu lépp yaa ngi yenu ay cabinet ak i tuur ndox toj la yaa ngi si sa biir sa yaram bi bu toogee ñaari fan sangu tilim nukk ba kenn du ko mën a jege naka noonu it boo borasuwut gémmiñ gi xeeñ bay yow sa bopp daf lay xatal dégg nga nga amee ay bataxi ay ñandaxit ak i tafli ak ñaq yoo xam ne mën na laa de mën na laa xatal dégg nga àdduna di la ay problème ki fitna dégg nga sax di la sonal ak weñ yi dégg nga ak yow nu mu weñ nu mu nga xam looy ragal dégg nga xam ay bëgg-bëgg yoo xam ne sottiwut nga dund ci loolu ba mujj génn àdduna nekk medd woo xam ne mënul boppam dara dañ koy sang di ko jàllar bi mënul boppam dara ñu jël la gas la suul la si suuf dëgg-dëgg xaw ma looy pour dafa yaram woowu de nga xam ne nii foofu ñu mujj mooy rek nëpp fo fonax dégg nga yax yi tasaaroo dégg nga kon kay yow doo dara yow doomu aadama sa kattan daal ak sa màgg mu ngi si jaamu sa borom bu dul lool daal sa jëmm ji boo ko nawee it naw nga lu nawut kon na nga préparé sa bopp noonu. bu biir gi setee nag nga jéem a jàpp bu dee jàpp war bu dee sangoo la war nag nga jéem a sangu sangu googu jàpp googu la war ne wayakun daa nekk zaalika loolu <coughs> bi maa ngi ci ndox taahirin maa ji laab xëyra mashubin boo xam ne jaxasoo wut bi ne yaasalin si sobe wala bi maa ngi di caagan ci ndox moo nga xam ne xat taxeer soppeeku na lawno couleur ba di seen ngir dara yoo xam ne xaalatoo jaxasoo naag moom min seen ci dara na gisin bu sobee aw taay ni warul laab de ndox moom ngay jàppoo wala ngay sangoo nga nekk ndox mu laab nga ne ko mooy ndox mu laab mu ndox mu laab mooy loo xam ne jaxasoo wut ak benn sobe dégg nga waaw fekkee dafa jaxasoog sobe te sobe sotti ko kon ndox moomu bu dee tuuti la ndox moomu dañ koy sib danañ ci ñëw ndox mu laab tama laabe it mooy ndox mi nga xam ne couleur bi dégg nga wala cef nga gi wala xar gi soppeekuwut ci loo xam ne dafa jaxasoog ndox mi moo xam loolu jaxasoog ndox mi lu laab la wala lu sobe bu fekkee nag la jaxasoog ndox mi lu sobe la dégg nga ndox moomu mën nañ ko jëfandikoo ci lépp lu dul jàkkaay doomu aadama mën nañ ko jox bàyyi ma ñu naan ko dégg nga mën nañ ko roosee tool yi dégg nga ndax bu gàncax gi saxee laab na wa duñ ko jëfandikoo ci loo xam ne ci wàllu wàllam jàkka nekk noonu it ma aadama du ko mën a naan du ko mën a diw ci yaramam dégg nga <clears throat> ndax euh, riixoo sobe ñii ne nañ lu xaraam la ñii ne luñ sibla la dégg lekk ko moom dafa xaraam dégg nga kon loolu la bu fekkee nag ndox mi lu laab moo ko soppi ndox moom moom dañ ko jëfandikoo ci aada ni ki togg mooñ ak demee noonu ndox bu ci suukar duggoon mën nga koo naan loolu ci wàllu aada la waaye wàllam jaamu yàlla doo ko mën a ñett la mooy sangu wala jàpp wala dindi sobe de <clears throat> dégg nga waaw yooyu ñooyu ndox yi nga xam ni mënuñ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla ndox mu laab nag te mën a laabal moom wax naa léegi ne mooy ndox ma nga xam ne nii ñetti melokaan yi soppeekuwuñ couleur bi changé wut cam ko gi changé wut xet gi changé wut ci loo xam ne moom ndox dëkkuñ ci luy tàqali ndox dégg nga waaw loolu da nga ci déggaale ne bépp ndox mu mel noonu rek laab na di la ndox muñ teree jëfandikoo la xam nga xeet yi nga xam ne yàlla da leen xalagoon ni ki samuut seen teen yi dañoo xaraamal ku fa ku jëfandikoo ci ndox moomu waaye boo si jàppoon it dégg nga waaw laab na de <clears throat> ndox mu jàpp gi baax na de yaa ngi mel ni rek ku jàppoo ci ndox mu këf baax na waaye xam nga bàkkaar dégg nga boo ci jullee julli gi wér na boo jullee ci jàpp googu julli gi wér na de waaw dégg nga lu laab nag ndox mu laab nag dafa am ñu ne mooy la xam ne melawu soppeekuut nga gi soppeekuut xar gi soppeekuut te jugeewut ci gàncax dégg nga jugeewut ci dégg nga luy dund boo jàppee ci wax jooju dafay mel ne ndox mi nga xam ne dafa balloon ci baaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndox moomu laabut ndax ci luy dund la génnee waaye ndox moom moom laab na ndax dañoo wax ne même boo jàppee ci wax jooju sax dañoo wax ne génneewul ci baaraamu yonent yonent dafa bëril ndox mi rek dafa yokk ndox mi mu bëri waaye nekkul ne daf koo génnee ci baaraamam moo tax dañuy jàpp ndox moom laab na kon ndox mu ndox bu même bu fekkee couleur bi soppeekuwut nga gi soppeekuwut xet gi soppeekuwut waaye ci gàncax la génnee wala ci xayawaan am nañu ne kooku laab na nii rek waaye mënul laabal maanaam mën nañ ko jëfandikoo ci aada ñu ki togg ak mooñ yooyu waaye mën nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla mooy jàpp ak sangu ak dindi sobe dégg nga <clears throat> ndox mi it bu fekkee la soppi dafa dëkk moom mënoo leen séparé waaw wala la soppi dégg nga euh, sës si ndox ma nga xam ne nii mënu tàqali ko ndox mi dégg nga loolu du yàq ndox de dégg su fekkee ndox mi suuf su muy jaar dafa am xorom ndox mi génn di saf xorom kooku ndox mi la ko soppi ak euh, dafa dëkk moom yàqut ko su fekkee pegg ndox ma dafa am medd moo xam ne dañ ko faas dañ fay sànni ay medd xet googu di changé xetu ndox mi loolu du ko yàq rek laa wax de ndax dañoo dañoo dañoo dañoo dëkkaale de maanaam nekkul ci biir ndox mi waaye dañoo denn dégg nga taqali leen yombut kon lislaam diine jàpp ndal rek laa wax de nekk noonu su fekkee da nga ñoom dañu am dañu naan am der yoo xam ne nii gadron lañ ko doon wullee ba mu set ñu di ci def ndox bu dee gadron bi nga wullee der bi ba set nga def si ndox ndox moomu bu soppeekoo ci gadron bi dina xet wala caf nga gi wala kuréel gi loolu yàqut ko waaye bu fekkee gadron bi nekkul ne moo wulli der bi soo ci defee gadron def ci gannaaw nga def ci ndox dégg nga su couleur bi su xet gi soppeekoo rek du yàqu waaye couleur gi wala caf nga gi moom bu soppeekoo dafa yàqu comme gadonoo boo kon gadonoo boo xam ne wëliwu der bi suñ defee si der boobu am ndox bu ko defee xet gi soppeeku loolu yàquut waaye bu dee couleur gi la wala caf nga gi dafa yàqu rek laa wax de loolu kuy tukki ak ku tukkiwul ñoo ci yem dégg moo xam dangaa nekk sa kër jël der nga xam ne nii gadoro defoon nga ci gadoro waaye gadoro bi wulli wut ko wulli mooy dindi yu salte yi ba mën a yàgg dégg nga bu dee gadoro bi wulli wut ko dégg nga defarut der bi ba mën a def ndox boo ci defee ndox te yaa ngi sa kër wala nga tukki yëpp a ci yem bu couleur bi soppeekoo wala caf nga gi ndox moomu baaxut waaye bu dee xet gi moo soppeeku loolu yàqut ko rek laa wax de <clears throat> dégg nga amma bu dee gadara moo ko li moom loolu ñett yëpp bu soppeekoon taxul mu yàqu ndax dafa dëkkaale ndox mi rek de wax nañ la nag lépp loo xam ne wax nañ la bu changé ndox ndox mi yàqu na duñ ci sartaal changé gi nekk lu leer nañ lu may ci masa bu Abu Hanifa Abu Hanifa moom bu fekkee ndox mi dafa soppeeku si saabu wala demee noonu te demut ba xëpp loolu yàquut ndox moom mën nañ see jàppoo waaye ci ngiram moom même bu soobee ko saabu te xamut xamut it dégg nga ndox moomu yàqu na kenn mun koo jëfandikoo ci jaamu yàlla xanaa ci aada wax naa la saa yu lu ko soppi saa yu nekkee lu laab rek ndox mi lu laab la lu ko soppi su nekkee sobee ndox mi lu sobee la de ba mu des benn masala boobu moom Maalik nee na balaa ndox mi yàqu mu soppeeku soppeeku gu leer nañ ñi nga xam ne ni ku xoolul bu baax sax da xam ne ndox mi changé na mooy ban masala mooy. ki nga xam ne dafay root ca teen ba ba baag ba muy rootee wala buum ga muy rootee su fekkee dafa soppi ndox ma dañuy seetaan mu nekk soppeeku gu leer nañ boo xam ne boo xoolut bu baax sax da ko gis waaw waaye bu dee soppi ndox ma moom buum ga ñuy rootee wala baag ba waaye boo xoo bu fekk seetantaloo ko bu baax doo seetlu soppeeku yi loolu du yàqu dégg nga loolu du yàqu rek laa wax de dégg nga xóoree ne ndox mi li ko changé moom baaxut waaye nag soppeeku gi da si da nga siy njort si sikki sàkk maanaam ndox mi da nga sikki sàkk soppeeku na wala soppeekuwut waaye xóor na ne bu dee soppeeku na moom la ko soppi dafa yàq ndox dégg nga su boobaa ndox moom baaxut de <clears throat> lii ab suukar la ngay sikki sàkk changé na caf nga ndox mi wala changé wut ko yow daal amoo lu wees leer boo mosee daal da ngay sikk sàkk waaye xool na bu dee changé na moom suukar si moo ko changé da ngay jàpp na ndox moomu yàqu na dégg nga waaye nag bu la ne ndox mi soppeeku na moom wóor na ndox mi soppeeku na waaye xamoo lu ko soppi mën na koo yàq wala mënu koo yàq ndox moom da ngay da ngay jàpp ne rek lu laab la rek laa wax de kon noonu la bu la ne ndox mi soppeeku na waaye da ngay sikk suukar si moo si dugg wala boog ndox mi lam dëkk ak moo soppi loolu moom dañuy jàpp ne ndox mi baax na rek de boo ci sàkk ndox mi la ko soppi dëkkut moom wala moo moo la ñoo dëkk loolu da ngay jàpp ne ndox mi baax na dégg nga ndax loolu mooy cosaan kon loolu la de naka noonu bu fekkoon ne ndox dafa dajaloo ci lay ci ci waaw kaw gàncax yeeg garab yeeg yooyu nga fëgg yooyu baam ci ndox mu bari yooyu lu laab la rek laa wax de ndax dégg nga euh, même bu dee gàncax yooyu soppine ko sax dañ naan dafa dëkk ak moom dégg nga kon bu fekkee yàlla ji dafa taw ndox yi teg taj ci kaw garab yeeg yooyu nga dékkandu ko wala nga waaw fëgg ko ba am ci ndox mu bëri moo mën a jàppoo yooyu yëpp it ndox mu laab lañ koy jàppee rek laa wax de bokkut ak nag ndox mi nga xam ne danga nga nal gàncax gi mu génnee ci biiram ñu ngi ndoxam pom wala ndoxam xaaral yu demee noonu yooyu même bu fekkee. couleur bi cam ga gi xet gi wute wute meloon ndox sax xam nañu ne baaxut ndax lim jugee ci gàncax wax nañ ne lu laab du jugee ci gàncax du jugee ci luy dund muy xayawaan kon loolu mooy ndox mu laab dégg nga ndox xeetu ndox mu laaba ngoog de moom moom lay wax naan illa maalu mooy ndox mi nga xam ne xëy na soppi na law na melakaanam alaadu suuf alati bi nga ne moom bi haa ma ngi sax waaye ndox ma min sabxatin laala moom ceeñ la aw hamatin wala ban aw naxwihima way niroog yooyu de loolu la lay wax ne ndox bu soppeekoo ci loo xam ne moom ndox mi ñoo dëkk loolu yàquut lool wax nañ ko léegi moo xam loolu soppi ndox mi ceeñ la mooy suuf saf xorom wala ban la way niroog yooyu dégg nga nit ki bu fekkee def suuf si dafa am xor wala mel tam sir neex nga xam ne day fuur wala xorom ndox mi génn di sax xorom wala xor woowu soppi ko wala mbelit moom soppi ko wala boog ndox mi la ko soppi sax si ndox mi la juddoo ni ki mbaala mbaal mooy vert yooyu nekk si kaw ndox mi waaw wala jën woo xam ne nii dafay dund kooku moog ndox mi ñoo dëkk yooyu yëpp buñ soppee ndox mi du yàqu waaye nag bu fekkee jën wi dafa dee moom bu soppee ndox mi ndox mi dana yàqu maanaam dana mujj laab ga waaye du mën a laabal duñ ko mën a jëfandikoo ci jaamu yàlla bu fekkee nag waaw euh, cabinet jën wi ay ay cabinet mag yooyu ñoo soppi ndox mi dégg nga nee na ndox moom moom yàqu na ci lu yi wax di jën wi mu ngi dund waaye xataa moom àndu ci loolu nee na cabinet ndox mi bu changé ndox mi it loolu yàquut dégg nga ndax loolu benn ndox mi soppeekoo ci yoo xam ne dafa juddoo ci moom rek wala loo xam ne mënul teqali moom dégg nga waxu xataa boobu nag moom la borom shara bi di fawaakihu dawaani ànd ak waaw kon ndox mi nga xam na nii dafa soppeeku ci loo xam ne ni mënut tàqali koog ndox mi wala moog ndox mi ñoo dëkk dégg nga <clears throat> maanaam wala boog moog ndox mi ñoo dëkk ñoo ñoo dend mooy misaal mu ma joxoon ca medd ma yooyu mënul yàq ndox mi de li dëkk ci biir suuf tamit ndox mi di génne suuf loolu bu changé ndox mi yàqut ko ni borom sarax bi waxee nag di le dangaa génne loolu ci biir suuf si sotti ko ci ndox mi loolu du ko yàq wala boog mbaalaam mbaal bi nga xam ne dafa juddoo ci ndox mi boo ko génnee ci ndox moomu def ko ci beneen ndox it mu soppeeku bu baax it nee na moom loolu du yàqu kon lépp loo xam ne moom ndox ñoo doon dëkk ci cosaan ni ki suuf wala boog xor yi wala salanci wala xorom ci wala mbel tam na neex ni waa ji waxee boo ko génnee sottiwaat ko ci beneen ndox du yàqu mbaala mbaalit boo ko génnee ci ndox sottiwaat ko ci beneen ndox du yàqu jëlee loolu am na mu wutee nag waaw lu mooy suuf suuf moom boo jëlee ndox boo jëlee suuf sotti ko ci ndox kooku moom du yàqu waaw wax nañ ne su fekkee ci nekkut xorom suñ keree korom la soo xam ne cosaan la dina yaagu tey sotti ko si ndox mu changé ndox mi du yàqu waaye bu dee xorom si xorom suñ keree la nga xam ne jugewut suuf ay ñax yooyu lañ def ba mu nekk korom yooyu moom boo ko sottee si ndox bu ko changé dana yàqu <clears throat> ndox moom dana laab waaye du mën a laabal su fekkoon ni da jël waaw am ndab loo xam ne suuf ko defaree def si ndox suuf soosu changé ndox mi loolu du yàqu rek laa wax de dégg nga jëlee la nga lakkee suuf soosu ba nekk ab ndab sobe la su boobaa du yàqu ndax li gën a wér mooy doomam sobe dégg nga moom bu xasee nekk doom wala mu lakk rek boobaa dafay mujj nekk lu laab rek de kon noonu la wamaawu samaay ndoxam asamaan kooku taayirun aji laab la mu taayirun aji mën a laabal la li najaasaati ñeel sobe yi ndoxam laab na man naa laabal wax naa la dina dafa tag si kaw garab yi nga fexe am ci lu mën a jàpp loolu laab na wa maa woon yoon yi ndoxam sew na yi mooy bal si suuf kooku taayoon aji laab la mu tayoon aji laabal la li najaasaati ñeen sobe yi ni ki zamzam jële samsam laab na mën naa laabal waaw am na ñu nag ñu ne ñam la dafay xaraam ñu dindee ko sobee dafay xaraam ñu sangee ko néew boo jàppee ne sangam néew boo jàppee jëmmi néewam doomu aadama sobe la waaye li gën a wér mooy néewam doomu aadama laab na wante wax jooju bokk rek lu siiw waaw <clears throat> li gën a siiw daal mooy zam-zam ndox la comme ndox yi mën naa dindi sobe waaw mën naa yëkkati toj dégg dégg nga de mën naa dindi atteb sobe mooy bu la sobe takkoon nga raxas ko ndox mu laabut digg boobu sobe si nekkul fa gaa waaye atteb sobe sa ma nga fa mën nga ko dindee sam-sam nee nañ sangee ko niw nag dañ koy cib boo jàppee ne niw sobe la boo jàppee ne niw doomu aadama lu laab la nag dana dagan a ah, waaye yaakaar naa ne nag jëmmi sobe xanaa bu doon niwam doomu aadama sax sobe la jëmmi sobe mook gën a nekk sobe ñu ngi ay yooyu xanaa looloo gën a ñàkk doomu aadama loolu boo waxee si boo ko si boo ndoxam zam-zam kon kay dafa mel ni waaw sangee néew ndoxam zam-zam di la néew sobe la de waaye ala kulli haal wax dégg nga <clears throat> li gën a daal mooy zam-zam moom ndox yi ñoo yem sangee ko niw nag moom nee na boo jàppee niw sobe la dañ koy sib wa ma abaari loo xam teen yi la mu tahirun aji mën a laabala leen najaasaat ñeel sobe yi ndoxam yi laab na mën naa laabal sobe di leen ndoxam teenam samud la nga xam ne dañoo tere koo jëfandikoo ak yu mel noonu boo ci jàppoo julli julli gi wér na dégg nga boo tiimoon seen suuf si boo jullee julli gi na waa waaye ñooñu seen ndox jëfandikoo da yonent la ko aaye de sallallahu alayhi wa sallam wa maa'ul bahri ndoxam géej tayyibun aji teela taahirun aji laab la la li mu teela laab na mën naa laabal sobe ndax ndox yooyu yëpp soppeekuñ laa wax de te yonent dafa waxoon ne yàlla bind ndox mi muy lu laab te mën a laabal dara du ko soppi lu may lu changé couleur ba wala cef nga wala xet ga nga dee gis ne kon ndox xeetu ndox yëpp fekk couleur bi soppeeku wala cam nga wala xet gi rek mën nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla ndoxam géej na moom dile géej gu saf xorom la ba kenn mënu koo naan dile couleur bi dafa changé ak nga gi xet gi laab na ma na laabal waaw ndax yoon dafa waxoon ne géej ndoxam laab na waaw mais dem dagan na noonu la ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam wama lépp li nga xam ne <clears throat> xuyira soppi nañ lawnoo oh, couleur ba bichéen ci dara taahir nu laab xal la nga xam ne wàcc na fii ci moom fa dalika maa u ndox taahir nu la xayru mu tahir nekkul lu mën a laabal fii wu duweñ ci njàpp aw tuxrin wala sangu aw zawal najaasatin wala dindi sobere ndox bu fekkee lu laab moo ci duggi soppi ko soppi couleur gi wala cam gi wala xet gi ndox moomu laab na waaw ndax lu laaba ko soppi ndox xatteeb la ko soppi lay yore waaye mënul laabal maanaam mënul jëfandikoo ci jàpp wala sangu wala dindi sobe dégg loolu mën koo mën koo see jëfandikoo de waaw <clears throat> ndax mënul laabale bu la waxoon moo xam kenn la wala ñaar ne ndox mi dafa sobe laabut teew gisoo si ak soppeeku ndax dafa lëndam wala boog yow sa bët neexut dañuy xool kooku wax la ne ndox mi sobe la su kooku julli la joo xam ni mën na mu kalaf te yaa moom yéen a bokk même ngir mu ngeen jàpp ñett sart yi bu ci dajee wala boog bokk leen ngir sax waaye wax na la lu changé ndox mi nga xam ne lool sobe la si sa ngir su boobaa war ngaa nangu la wax bu la kenn waxee ne la koo xam ne julli la jot na baax ngeen bokk même ngir. wala bokk leen ngir sax waaye wax na ne lii moo changé ndox mi dégg nga te loolu sabale sa ngir su boobaa war ngaa nangu xibaaram de bu fekkee nag jullit la jot na baax bokk leen ngir te waxul la li changé ndox mi daf ne ndox mi sobel rek waaye waxul la lu ko sobel su boobaa li gën rafet mooy nga ba ndox moom waaye boo ko jàppoo dina baax waaw waaye li gën si masir yi nga ba ndox moomu lu tax loolu mooy ne man naa moom lam jàpp na sobe la si ngiram waaye du sobe si sa ngir comme que bokk leen ngir nag te leerul loolu la ndox mi boo ko jëfandikoo dana baax waaye li gën a ci marché mooy nga bàyyi ndox moomu dégg nga waaw bu fekkoon nag nit daf laa wax ne la ndox mi laab na te yow da nga doon sikki ci ndox moomu sobe wala du sobe moom mu ne laab na yaa ngi doon sikk saak ndox mi sobewu na wala déet mu ne la ndox mi laab na boobaa moom duñ ci xool moom jullit la wala euh, wala xeefeer la duñ ci xool xale la wala mag la rek de ndax lam la wax moo ci saan ca ndox ma su boobaa da ngay jàpp ne ndox mi laab na rek de booy la ndox mi laab na te yaa ngi doon sikk sobe na wala déet jàppal ne laab na di leen moom mi la wax loolu xeefeer la wala xale la ndax lam wax moo ci saan ci ndox mooy laab lu mooy nag nga gis ci ndox mi loo xam ni feeñ na luy niru ne sobe waaw wala boog mm, bu dul sobe it mën naa dindi man naa rekki laab ak ndox ma maanaam lu laab la waaye soppi ndox mi su baa moom boo ci gisee mandarga bu mel noonu moom mën ngaa jëfandikoo li not sa xel jàpp ne ndox moom moom bu dee sobee ko soppi sobe bu dee lu laaba ko soppi lu laab la de yaa ngi déggam naka noonu it su fekkee ndox mi dafa sobewu waaw gannaaw ga sobe si feeñatul ci daal di dañ ni ndox moo xam ne daf doon xeeñ tuur ndox ñuy bokk fa ba mu yàgg xeeñatul dara te sottiwuñ ci dara defuñ ci dara ndax ndox moomu dafay continuer nekk sobe ba léegi wala day mujj laab si cosaan moom dafa sobe woon gannaaw ko nag la soppee woon mujj dañ mu nekkaan moo xam ne ndox mu set wecc la ndax day mujj day dañuy jàpp cosaan la ne dafa sobewu wala ñu xool ci ni mel léegi ne laab na man nañ koo jëfandikoo si jaamu yàlla kooku xam na ñaari wax bu nekk wax nañ ko ñi ne sobe la ñi ne laab la waaye biñ la nit ci ñaari wax yooyu mooy ndox moomu ba léegi sobe la loolu moo gën a dëgër dégg nga amaa bu fekkee ndox mi dafa sobe def cee dugg nga sotti ci ndox mu bëri ba sobe soosu mujj dañ wala nga soppi sotti ci suuf ba sobe mujj dañ te suuf si amul jeexit ci ndox mi su boobaa ndox moom moom dafay mujj laab ndox mi sobe la nga sotti ci ndox mu bëri sobe si dañ kooku mujj na laab walla nga def ci suuf ba sobe si amul tut couleur wala amul tut nga te jeexitu suuf si feeñ ci ndox mi su boobaa mujj laab amaa bu dee ci suuf si mu ngi feeñ ci ndox mi dañuy jàpp ne suuf soosu mooy xenu si rek de te boo laalee ndox mi da nga laalaal kon baaxut dégg nga loolu mooy atteem ndox moo xam dafa sobe woon gannaaw ga sobe si dañ amaa bu fekkee ndox mi dafa laaboon maanaam lu laaba ko soppi ni ngi suukar ñu bakk foofu gannaaw ga ba dafa tut maanaam safatu suukar xet eh, sop eh, caf nga gi daal di dañ soppeeku gi daal di dañ kooku moom dafay mujj laab rek de waaw kenn du wax ne laabut mën nañ ko jëfandikoo ci jaamu yàlla ndox bu dee lu ko soppi gannaaw ko mu dañ te defuñ ci dara moom moo dindil boppam moom moo dañal boppam ndax yàgg gëm fa yàgg ndox moomu gannaaw ko man nga koo jëfandikoo de ci jaamu yàlla ndax lu la ko soppoon su ci saan garaawut lu laab la woon rawatina nag bu fekkee ndox mu laab la nga sotti si dara ni ki ndox wala suuf moo di la jeexal suuf si ma nga fay feeñ ba lu laab li safatu sa su boobaa dana baax ba amoon ndox moo xam ni suukar lay saf nga sotti si suuf ba safatu suukar di la suuf si ma ngay feeñ ci biir ndox mi mën nga koo jàppoo baax na naka noonu it boo sotteewaatee ndox dégg nga ba safatu suukar mën nga koo jàppoo ndax loolu bu si sobe sax bu ndox mu sobe de sax nga sotti si ndox ba sobe si. feeñ tuuti man nga see jàppoo waaw naka noonu bu dee ndox mi dafa safoon suukar ni ki mu soppeekoo ci lépp lu laab rek waaw gannaaw ko mu dem ba ci lu laab la daal di dañal boppam kooku it mën nañ koo jëfandikoo dégg nga waaw waxoon naa ci gannaaw ne ndox su fekkee wóor nañu soppeeku naa ñi ci sàkk la ko soppi mën na koo yàq wala mënu koo yàq maanaam dëkk naa ak moom wala dëkkut ak moom. ndox moom lu laab la waaw lu mooy nag waaw yow la gën a not si sa njortu ak si sa xel mooy ndox mii la ko soppi lu ko mën a yàq la su boobaa ngay jàpp ne yàqu na bu ko jëfandikoo de <clears throat> waaw wuteeg nag bu ñu xóoroon ne ndox mi soppeeku na waaw mu leer ñu ne la soppi ndox mi mën na koo yàq waaye lañ ci sàkk mooy ndox moom la ko soppi lu laab la wala lu sobe ndox moom soppeeku na la ko bu soppee ndox kenn mënatu koo jëfandikoo ndax dëkkut ak moom waaye nag la soppi ndox moom lu laab la wala lu sobe la loolu la ñuy sikk sàkk boobaa ndox moomu duñ ko àttee sobe ndax lay cosaan mooy laab waaye nag duñ ko mën a jaamoo yàlla ndax wóor nañu ne la ko soppi lu koy yàq la kon dañuy jàpp rek ne ndox moom ndox mu laaw la rek laa wax de loolu rek mooy àtte ba dégg nga wama xayratu la soppi na ko an najaasatu sobe fale se nekkut bi taay ni aji laab wala mu tax du caagin aji laab rek laa wax de loolu moom leeral nañ ko wa qalil maay ndox mu néew yu najisoo dana ko sobeel قليل نجاسة صبر سنه وإن لم تغير دل صبركو فوف جرم فوف مالك أكي طالب يميل انت يوتي ndox mu néew nag mooy ndox mu nga xam ne si jàpp rek la نحن wala sangu dégg nga nee na ndox mu mel noonu bu si ngiram ibnu qasim mi nga xam ne ci taalibe Maalik la bokk nee na ndox mu new bu ci sobe duggee te soppuur ko sobe dafa ndox bu demee ba mat loolu maanaam bu jàpp wala sangu dootu mën a xenooti sobe maanaam dara mënut ko sobeel moom mu déggee ci moom ak ngiram Shaafi yu déggee ci loolu ne kon ndox mi bu fekkee dafa tuuti bu si sobe dugg rek soppi na ko kon ndox mu tuuti toll ci jàpp wala sangu bu ci sobe duggee dégg nga xenu na sobe soppi na ko waa day yore atteeb lu soppeeku rek di soppiwul ko ndax yoonu dafa bu ndox mi baree bu ci sobe duggee du ko xenu ñu dee gis ne kon bu tuutee bu ci sobe duggee xenu na ko kon comme que xenu na sobe rek même bu ko soppiwul yàqu na loolu mooy ngiram saafi waaye la gën a siw ci Malik te loolu daf mel ni mooy lu gën a wér mooy ne ndox moom dara mënu koo yàq lu mooy mu soppeeku couleur gi wala cama gi wala xet gi dina ndox mi lu tuuti la toll si jàpp rek wala sangu dégg nga ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne yalla bind na ndox mu nekk lu laabaakoon ñu mën cee jàpp mën cee jaamu yàlla mën cee jëfandikoo mën koo jëfandikoo ci aada mu ne ndox moom dara du ko soppi lu may lu changé couleur gi wala caf nga gi wala xet gi loolu la yonent wax loolu nag génnwul ci ndox mu tuuteeg ndox mu mag ndox mu bëri ndox daal balaa moo soppeeku couleur bi changé wala caf nga gi wala wala xet gi kon Malik mom lim lol lu yenoon tudal bopam la mu leer nañi amma ñëwuteeg mom nak lañ lol rek du du lu tuddu lañ dégg la ci wax ji ta dalalatu man tuux nag tegtalu lañ tudd moom la ñuy jiital ci tegtalu lañ dégg de bu de yow li nga ci degge man naa am sa dégg-dégg moo la nax amma la yenoon tuddal bopam mom koku mom lañ jital kon dox dara mënu ko changer lu moy changer couleur gi wala chef nga gi wala wala kat gi te hadis bi it dégg nga <clears throat> mën nañ ko yonent maari ko lottal am na ñeneen yu ñu ko lottal na hadis boobu dëgërut même boo jàppee ne wér na sax wér na sax maanaa ba jar naa xoolaat ndax yonentu bu ne ndox bu ëppee sangu wala jàpp du xeenu sobee maanaam dafa bëgg wax ne pour sobe dugg ci ba changé ko du yomb dégg nga moo tax mu ne du xenu sobe maanaam sobe dugg ci ba changé ko changé couleur gi wala cam gi wala xet gi du yomb kon moo tax laab na amaa nag ndox mu lu mu bëri bëri bu ko sobe soppee couleur gi wala cam gi wala xet gi moom dafay yàq te léegi-léegi ndox bari dégg nga ñu sob ñu euh, sobe si bëri ci lool ba mujj soppi ko ndox moom kenn mënu see jàppwaate kon loolu dana dëggal li yonentu wax mooy sobe soppi ko yombut waaye nag waxul ne sobe mënu koo soppi waxul lool dégg nga kon loolu da ci déggee ne yonentu ma la bëgg a junjit ne ndox soppeeku moo koy yàq gannaaw bu ko tuddee kon juñu na ko tudd na ko dañ ci déggee ne soppeeku gi moo yàqu moo tax bu bëree comme ku soppeeku yombul ci du yàqu waaye bu soppeekoo moom boobu wóor ñu soppeeku na dafa yàqu dégg nga loolu it mën nga cee déggee ne bu la ko yàq rek mooy soppeeku ga waaw maanaam yonentu mu ngi ñu bëgg wax ne soppeeku gi mooy yàq ndox mi bu soppeeku du yàqu moo tax bu bëree sobe dugg ci jàppoo leen ko ndax ñaareel dégg nga dégg nga loolu du gaaw a soppi de kon sabab bi yàq ndox mooy soppeeku te sabab nag bu xamee atte bi am bu ñàkkee atte bi kon soppeeku bu amee ci ndox rek ndox mi yàqu na bu soppeeku amul nag ndox mi baax na te loolu ci ndox mu bëree mu tuuti la la dem kon Maalik am na am na mafhum dégg am na tegtalu mantuq luñ tudd te ñële tegtalu mafhum rek lañ am ta xëy na nañ firi hadis ba la dégg nga te dafa mel ni nañ firi hadis ba tekkul loolu yonentu bëggul wax ne ndox mi du yen du du sobewu bu mukk du yenu sobe rek la wax waxu ne waxu ndox bu bëree du sobewu du yenu sobe maanaam soppeeku gi yombut ci loolu la bëgg a wax nga di gis ne kon bu soppeekoo la yàqu bu soppeeku du yàqu bu tuuti noonu bu ko wala yàqu bu sobeeku du yàqu de kon ndox mu néew bu sobe duggee te sa pour ko la gën a wér ci ngir Malik mooy dañ ko sib rek boo xamee beneen ndox boo xamul beneen ndox sax si buñ ko looloo ci gën a wér rek laa wax de <clears throat> waaye duñu wax ne yàqu na boo julli boo julli woon ci ndox mu mel noonu nag boo woon ci ndox mu mel noonu julli jarul baamu baax na di leen sib nañ ko boo amoon beneen ndox jullee ndox moo xam ne jàppoo ndox moo xam ne sobe da see dugg te soppiwul ko te fekk ndox mu néew la kooku jarul baamu dégg nga boo jàppee ci wax ji lott yi nga xam ne nii moom la borom ni saara yaxal ibnu qasim ànd ci mi masabu saafi da baamu ba foo de ndax wuutu ante xila euh, wuutee gi ci am ndax ñoom ñoo jàpp ne ndox moomu sobe la kon boo si jàppoo da ngay baamu ba ba faw <clears throat> dégg nga waaye ndox mu bëri moom moo xam ne ëpp na jàpp wala sangu moom balaa moo soppeeku balaa moo soppeeku rek soppeeku loolu ñëpp ci dëppoo kon kay ndaangoo daakoo nañ ne mën naa soppeeku dégg nga waaw loolu nag mooy sobe amaa bu dee ndox mu néew lu laab dugg ci te soppiwut ko loolu moom mënul yàq ndox mi ci buñ ko sax ba léegi ndox moom ndox mu baax la bu laab la parce que la ca dugg lu laab la te sappuut ko la ñuy wax naan sib nañ ko wala xaraam na maanaam sobe la wala boobu dañ koo sib rek mooy bu fekkee sobe moo si dugg te sappuut ko kon da ci déggee ne ndox mu jaxasoo ak lu ko mën a yàq ñetti xaaj la waaw benn xaaj bi laab na mën naa laabal mooy ndox mu bari moo xam ne la ca dugg sappuur ko moo xam sobe laam du sobe kooku laab na mën naa laabal am na boo xaaj boo xam ni laab na te mënul laabal wala boog sax sobe la laabut mënul laabal bu laab te mën a laabal mooy boo bu laab te mënul laabal kon mooy bi nga xam ne ni lu laab def cee dugg soppi ko moom ndox mi kooku laab na waaye mënul laabal bu dee sobe la tamun lawal moy bo xamne sobe mo ci duggu de nga bu ko defé sopiko ko boobu sobe la tamun lawal de nga ndox mu bari ak mu tuti yep ci yam bu xasse soppee ko rek yakuna na defay dafay yore la ko sopi la ko sopi bu dee lu laab ndox melu lu laab la la ko sopi bu dee sobe ndox mi sobe la amna xaj bo xamne dañ ci wuté moy ndox mu tuti sabe dugg ci tasappuur ko ci ni taarifkat bi waxee loolu sabe la waaye li gën a siiw mooy dañoo dañoo jëfandikoo dañoo sib ko jëfandikoo soo amee beneen soo amul beneen si buñ ko doon laaxoon rek wa maa yi néewal ndox mi maa ihkaamil xusli ànd ak xereñ raxas ga sunnatun sunna la néewal ndox mi ànd ak xereñ raxas gi sunna la wa saraf wëppal mi lu si ndox mi xuluwun xóotal diin la wa bidaatun bu araam bidaa buñ sib la rek waaw ndax lañ ñu bañ mooy bu ndox mi bëree nga mujj rek di sotti sa raggatoo ñu bëgg nga def ndox mu yem ànd ak de moo xam jàppali si jàpp ak sangu rek lañ lañ si ëppal ndox mi moo xam jàppale ak sangu lu war lañ wala luñ sopp lañ amaa bu fekkee du jàpp du sangu ni ki da ngay raxas sa yére wala sa ndab wala yu demee noonu waaw kooku def ci ndox mu bari kooku kenn si ko rek laa wax de lu mooy mu nekk yàqata ndox mi seer su boobaa loolu danañ ko sib dégg nga rek laa wax de waaw bu fekkoon seeram dafa sedd hmm, waaw nga tàngal ndox di ko jàppoo ngir seeram ndugg wala boog seeram dafa tàng ngay ngay jàppoo ndox mu sedd waaw loolu it euh, nga yokk euh, nga ëppal ndox mi def raxas ñeenti yoon wala juróomi yoon wala nga def ci ndox mu bëri loolu si buñ ko ndox si suuf nag moom xeetu yàq la dañuy xool su fekkee loolu am na lu ko waral niki ndox mi dafa sopeewu nga tuur ko loolu moom dara nekku si dagan na waaye bu fekkee dara warul ko yaay foo rek di tuur ndox mi ñu xool bu dee ndox mi ndoxam ndoxam waqfu la moo xam lañ ko joxe eh, ci yoonu yàlla moom boo ko tuuree dégg nga def nga lu xaraam dégg nga bu fekkee it ndox mi yaa ko moom waaw nga tuur ko waaye ndox dafa seer lool ci jamono jooju waaw nga tuur ko dégg nga te fekk ndox lu am valeur la ci jamono jooju kooku dafa xaraam ndax loolu sànq alal la rek laa wax de waaw bu dee nag ndox mi seerut waaw te yow it waaw ndox mi yaa ko moom dégg nga nga tuur ko moom loolu euh, dara nekkul si la wax de bu fekkee la tuur amul valeur dégg nga kon yemale ndox lu baax la waqat tawa daa jàppoon na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi muddin ci benn mut mooy lu toll ci walaat woowu moom wasnu ritrin mooy maanaam ritr ab liibar kon walaat ndox yonent jàppoon na ko mutolook libar ci yeneen yi wa ak ceeru liibar walaat mooy liibar ak ceer wa tatahara sangoo na bi ci saa woowu moom arbaatu am daari mooy ñeenti mut waaw benn mut mooy liibar ñeenti mut mooy ñaari kilo yonentu sangoon na lu noonu benn mun mooy walaat moom la jàppoon bu jàppooyee ñeenti mut mooy ñeenti walaat yonentu jàppoon lu toll noonu rek laa wax de bi mu di ci mu yonent bi alayhi yàlla nekk moom asalaatu xewal wasalaam ak mucc laa wax de sallallahu alayhi wa sallam yonentu jàppoon na ndox mu yem daal la bëgg wax ku ne pël mu génn ci laab ak ndox ñëw ci laab ak pàkk ne wa taaratul buqaati laab ak li salaati ngir julli waajibatun aji war la wa kazalika naka noonu taaratu saw bi laab ak yére fa qiila wax nañ ne zalika naka loolu fii maa si ñoom ñaar waajibun aji war la wujubal faraayidi war ak farata wa qiila wax nañ ne wujuba sunani war ak sunna la laawal pàkk pour julli dafa war naka noonu laawal yére dafa war balaa ngaa julli sa na laab barab bi nga jullee na laab war gi na dafa am ñu ne war farata la maanaam waaye nag ànd am kàttan ci laab gi te fàttaliku ko amma boo ko fàttee ba julliwaale ak sobe wala sax yow da ngaa dindi sobe gi bu baa waratul la kon bu fekkee da ngaa julli ci yére boo xam ne dafa sobewu wala ci pàkk bu sobewu fekk yaa ko tey da ngay ba faw boo xamutoo ni da ngay baamu ba faw ndax réer ak ñàkk xam maanaam ñàkk xam ak tay benn la kon boo jullee ci yére bu sobe wala ci barab bu sobe wala sa yaram sax sobe fekk yaa ko tey da ngay baamu ba faw boo jàppee ci ñu wax ne loolu dafa war amma bu fekkee da nga mënutoon dindi sobe soosu wala nga ko fàtte ba julliwaale ak moom da ngay baamu ci waxtu wa su waxtu yi nga ba amma boo jàppee si wax ñu dindi sobe sunna la te loolu ibnu rusdin moo ko siwal waxu ibnu xaasim la mu jëlee ko ci malik malik ne dindi sobe ci yére ak ci yaram sunna du farata ibnu rusdin ne boo jàppee ci wax jooju ku julli xaaleeg yére bu sobe dile moo ko tey dafay baamu rek ci waxtu wéyit waxtu wéyee mu ba bu fekkee dafa réer day baa mu su waxtu wéyee su waxtu wéyee mu ba naka noonu bu dee dafa dafa lottu wala daf ko fàtte woon ni day baamu ci waxtu wéyee waxtu wéyee mu ba kon liy wax ne soo ko fàttalikoo man ko lay nekk lu war mooy si boo jàppee dafa war amaa boo jàppee sunna la moom nga fàtte ko tey ko yëpp benn la da ngay baamu rek su waxtu wéyee su waxtu wéyee nga ba boo jàppee dafa war nag boo ko teyee baamu ba faw bu fekkee da nga koo fàttee wala da koo mënut nga baamu ca waxtu wa mu tolloog ci wax yi wax ne boo ñu wax ne sunna la kon noonu la <clears throat> yaa ngi dégg taalifkat bi nag waxut ci laab ak yaram waaye jàppal ne bitti yaram te jàppal ne gémmeñ ak bakkan ak nopp ak bët ci bitti yaram lañ bokk seen biir bakkan beeg yooyu biir gémmeñ gi bitti yaram la bokk moog laab ak pàkk ak yére ñoo yem rek de <clears throat> wutee gañ wax léegi rek moo ci nekk ñu ne farata la war ak farata ñu ne war ak sunna maanaam biir yaram nag ni ki biir beeg yooyu bu fekkee la laab la fekk génnut duñ si bu dee ni ceeb nga lekk boo ko moom mu génn tam soppeeku loolu sobe waaye bu génnut waaw laab na su fekkee la nga dugal ci biir yaram bi laabut sobe la ko nga koo war a wàcc su fekkee man nga ko wala boog fàttewoo ko bu fekkee yaako tey wëccoo ko lekk nga lu la lu sobee te wëcc woo ko fàtte woo ko te mën nga ko wëcc da ngay baamuwaat ba foofu de bo si jullee bo jullee da ngay baamuwaat ba foofu ndax yow sobe mu ngi sa biir yaram te man nga ko wëccu fàtte woo ko nga xanaa bu ne bares de su bo boobaa boo jullee moom jarul baamuwaat ba foofu jarul sax baamu ci waxto wala boobu mu dem ba nga xam ne mënatoo ko wëcc waaye fekk yaa ngi koy mën a wëcc di ko fàttaliku boo jullee moom da ngay baamu julli ga ba faw boo jàppee suñu wax ne dindi sobe dafa war boo jàppee suñu wax ne dindi sobe sunna la da ngay baamu julli ga waaw ca waxtu wa rek jëlee yaa ko ñaari wax yëpp nag boo si jàppee suñu wax ne lu war la wala ñu wax ne sunna la boo si jàppee fekk ba nga lekkee sobe si da nga koo fàttee wàccu ba julli wala da nga ko mënut a wëcc su boobaa moom julli gi wér na da ngay baamu ci waxtu war rek de dire da ngaa jàpp ci wax ñu wax ne dafa war waaw moo xam sobe soosu ba nga koy lekk yaa ko tey wala danga ngaa loru dégg nga nit ki ku loru naan sàngara yooyu yëpp ci yem da ko war a wëcc moo xam